ko tent sama bopp kan moo la tent. <laughs> soo mel longo moo ma tent quoi waaw. waaw Louga bees. waaw Louga bees la général Ndioulou. mooy général dañ maa yónni yaa xam te ma taxawaalu waruma. yoon bi xaw a am benn escale benn du yoon. moo tax ñu indiwaat général te bu ñu ñëwaatee fii nga xam ne général ñëw. temps bi lan nga jàpp ni moo la ko yóbbee. temps bi li ma ko yóbbee mooy xam nga damaa jëloon loo xamante ne dafa bëri doole ci man te dafa am loo xam ne benn nit attanu ko ma bëre ba tollu fenn fi ñu jox ma combat boo xam ne mu diire deux ans boole ko ñu jël ma convoqué ma tournoi oo occupé ma. xam nga loolu neexul ci xool du lépp la ñuy wax mais xam nga dañ maa dañ maa convoqué tournoi CBAO occupé ma tombé ñu jàppal sama combat ma war goo préparé préparé wu ma dara mu doon lu ma naqari nag. mais nag sant yàlla xëy na lu mënut a ñàkk. nga jàpp ni war ngaa mën a bëre ak moom te yéen ñaar làmb ju neex la. waaw maa ngi ci maa ngi ci booy ci kaw. kuñ ma jox ma jël waxal diw. ndax yow xam nga sa yow koo ma yéene yow. man maa fi ëpp adversaire. ku ñëw ba barke yeneen bi position boobu taxawee xoolal ma ci booy fi gën a soxor ndax maa ngi entraîné chaque jour matin soir sama waa écurie rek laa fi bàyyi ak ñi may àndal boo yëpp laay bëreel ñi ci bari dañ naan mbëru simple yi dañuy am difficulté adversaire da ngay nangu loolu. waaw gars yi moom xam nga làmb ji léegi daa bëri moytonte boo xoolee looloo xaw tax làmb ji xaw a tardé mais ji waroon naa dépassé fii ndax mbër mu ndaw bu fekkee mbër moo xamante ne mbër mu ndaw nga da ngay toog di calculer sa carrière da ngay ree ba tas te boo bëggee jàpp benn saison bu ne nga bëree benn combat balaa ngaa egg ci vingt combat vingt ans de carrière tamit day yéeme na gars yi ñëw ñu bëre mbër ci nekk war ngaa bëri ci saison bi trois combats ba quatre loolu nag li koy waral mooy li maye mooy mbër yi nangoo bëri seen biir man pare na pour mbër yëpp instant yi lamb rek laa bëgg ñu ngi man bu baax a baax kon balaa saison bee jeex balaa saison bee jeex waaw instant yi lamb laa namm barke Seydina Mohamed déggoo ma ñu ngi Pikine ñu ngi Guédiawaye ñu ngi Parcelles ñu ngi bépp instant bi nii ay ta général